asalaamaaleykum wa rahmatullah <coughs> yi bokk yi gannaaw buñ ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp di ko dalee ci sëriñ bi eh, Cheikh Ibrahim ibnu Cheikh Nazir wàcc ci Cheikh Ibrahim ibnu cheikh Mouhamad Nouruddin di nuyu ahlu bayti yi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ak daggiti res yi cheikh Mouhamad Nazir yi fi teew ak cheikh Mouhamad Nouruddin di nuyu kilifa yi yëpp waaye di xaasal sama goro Aboubacar Niass mbay ci dëggum ci bëgg yàlla bëgg bàyyi bëgg taalibe bàyyi looy naxee mbay rek jaaral ci buntu bàyyi loo ko ci teg mu gàccoo ko yal na yàlla wéral ay cëram dolli fanam te dool dolli wërsëgam yaa bi bokk yi damay wax toujours ne la daloon tilli ga dana ma dal ndax tilli gi dafa feebar ñu ne ko lu la feebar mu ne dama lekk sump su bari ñu ne ko lu lay faj mu ne lekk sump bunt bi may waxee kii jox ma micro bi ak ñi mel ni ñoom ci bokk ci jotaay bi di Cheikh Mouhamed Nazir Niang Male di muraqibul am maam Samba Ñaan ak tafsir Aboubacar Sarr mii nga xam ne moo fi def conférence bi damay sant yàlla te gërëm taarix man damay sant yàlla gërëm taarix ndax damay wax ne fekke yépp neex na mais fekkee jotaay yi bàyyi benn jotaay dàqu ko te ndaw lii doon def conférence bi léegi maa ngi fàttaliku at mi Cheikh Mohamed Nazir ñëwee ci ndigali bàyyi sànga ko rëdd fa école ba papam Arfang Senghor nekkoon policier garde bàyyi bu bàyyi daan julli ji juma ñaari policier lañ koy booleel boobu sax sécurité amut garaawut waaye nag dañ doon def lii leen war ndax bàyyi mi ñu doon garde moom léeg-léeg mu tërëf ci bayaal bi sax ba xaw a riisu policier bi koy garde nga xam ne bayaal bi féexoon na ci moom ba nga xam ne gëm na ne fu ma neex jaar keroog ba ñuy rëdd école Medina Sàngaako bi ndaw lii jàngee bési ajjuma la ci tàkku tàkkusaan mu oo Arfang Senghor ne ko suba ci samedi ji dama bëgg nga ànd ak sa doom Mouhamed Nazir mii ànd ak moom sàngaako mu rëddal leen école ñun yëguñ dara ci néeg bi rek lu paar Arfang Senghor yuuxu ci biir néeg bi daanu ñu ne lan la lan la mu ne bàyyi cër bi rëy na Naziru pour ma jur ko rëy na ci man Naziru sa doom rek la war a doon man taalibe laa bàyyi waxtaan woowu bokk ca ñu fekk fa Pa Yaxya Pa Dut Senghor li may wax mu ngi nii xam nga teesante juróom benni bët la bañ olof daf ne yaa ma ne woon ma ne la te yow de neetee tooma gis naa ku ma ne nag waaye yaate tee yow ma ne ko waaye soo ma newut moom bu ma neetee dinaa ko ne de te doo ci mën dara moo tax teesante juróom-benni bët la bañ tey gis nga njaboot gii billahi lazi laa ilaaha illaa huwa sos ci seen baay dara duma ko sosal Cheikh Nazir ak taalibeem xeeb njureelem jëndee ko taalibe ci kanam baayam Cheikh Ibrahim ñas loolu rek la doon dund ak baay wax nga léegi benn wax ne ñun ñoo laan enu tànt bi di enu baas yi bu oto bi paane ñu continuer waaye la Cheikh Nazir waxoon gàcce ngaa laa ma ñes laa yantiqu anil hawa mu ne ma Ibou Ndiaye gis nga ñii di sonn nii billaay ëllëg génération bi ñuy nekk kenn du leen ci gën a tekki ñëpp ay imam lañ ñii ay professeur lañ ñi nekk ci consul yi ñii di ay docteur ñii di ay homme d'affaires Nazir dafa bëggoon bàyyi ba bu ma àndeek moom ci néeg koo xam ne bàyyi la sax man maay fëgg buntu dina respecté kooku ba du fëgg bunt bi moom man lay wax ni bu njaay doomi xaraam ji fëggal su ma bañee sama baaraam dina ko bés ba mu bëgg a damm ma fëgg ndax ma ne damay bañ accident ma fëgg bunt bi waaye ma ne suñ ma ne kan la ma ne Mouhamed Nazir man bu naa pour jot li sama tur mu def ko buntu nekk El ñu ñëw taxaw mu ne ma soo waay fëggal ma ne ko sëriñ bi fii mënu maa fëgg mu ne ma da nga fëgg nag ma ne kang kang bunt bi El Hadj kan la ma ne Mouhamed no Mouhamed Nazir mu ne Fatou ubbil ko ubbilal Naziru mu ngi koy dégg ndeke bi ñuy ubbi bunt bi El Hadj Abdoulaye jóg na di gàttandu nas Naziru ci buntu dex bi biñ ne kàccit bunt bi mu jox ko loxo rek Naziru ne ko nit ñi dañuy fen loolu la ko teetoo teeroo de Naziru maa ngi lay seedeel ne nit ñi waxuñ dëgg su ma xippee sama bët teg ko ci sa jëmm ki may gis duma ko gis yow ba pare di la dëkkale fi ñu wax ne fa laa la dëkkale. te ñii seen maam ba muy aji makka yàqa di géey caam maa toppatoo kayit yi carnet vaccination d'identité yi maa ko yóbbu faal ak jox ko paay bu ñang yàqa di géey yaa jëm faal maamati ñes ñoo rañaan ci benn at dem makka man mii maa ut seen kayit bàyyi na ma man ngaa ut kayit ma ne ko waaw mu ne ma kon yaay suñu waxambaane moo tax léeg-léeg may def jëfi waxambaane waaye wax jooju la yàlla barkeel bi loolu amee ñu dem Dakar bés bi ñuy rañaan pour war a aji ñu fekk bàyyi ngi am taab ci poqtaanam métti trop benn naar doon ko bënn mais bënn bi baaxul mu noo loxo ndeyjooram yëkkati loxo càmmoñam ci kaw Nazuru ñëw xool gis bàyyi ngi tëdd mais loxo baa ngi jóg mën a bàyyi anta malak lii lan la sëriñ bi buñ toogee ba léegi sa loxo bi tëddul bàyyi na ko man de dama fi amoon taab bu métti waaye diw daal moo ko doon bënn mooy génn noonu nga taseet waaye bënn bi baaxul rek mu dir jóg dab naar bi bàyyi na kabir fay téye ko oo ko mu oo ko mu ñëw mu ne ko foo jëm mu ne ko bàyyi moom bu la ñun am nañ ci soxla mu ne ko yéen a bokk mébét yéen a bokk éy na ci man métti la doon dindi rek métti métti nga ma yërëmee moo mun a yar ba pare ne xadi géey mu ne ko ñas mu ne ko tàggu nga alaaji Abdoulaye mu ne ko waaw ñaanal na ma ewi na ma mu ne ko loolu du kéemtaan Alaaji Abdoulaye jàtti farata jum teg tànkam xam na sasam fu mu commencé fu mu yem bàyyi wax li keroog laa ko wax Alaaji ci néegam mu ne so jët ci lalam jox ma loxo fi ma toog ci suuf ma ne ko ëpp na ci man mu ne mu du yow baat bi fi mu jógee laay cëral wax ci Nazir ku ne mën na ko waaye dafa am ay jotaay dafa neex te dafa rafet toog nañ di wax mbiram école Kër ma Madiabel as jëtu di xëcc mbubbam Cheikh Nasir xoolu ko mu koy xëcc Nasiru xoolu ko bañ génn mu ne ko Nasir lu tax booy wax ak bàyyi ku la doo ko uyu mu ne ko bu ma gestoo bàyyi lu may xool lopp bàyyi ñi nag ay doomam lañ dinañ may draaya lool ba nit mën naa leen a yab waaye wàccee naa leen seen wàccuwaay kenn rawu ci bàyyi seen xalifa bi wàcce naa ko wàcc wàccuwaayam dinaa def carax néeg bàyyam mu teg ma ci mbaggam mi wër ak man néeg wër am na benn waay ci nee ma may koy may métti lu loolu mu ne ma da ngaa doon gone rek waaye man lii su ma ko amoon jël ma ne ko daf la ko defut ni ma ko defee te loolu bi may ñëw fii yëguñ ma ñoom man damaa duggoote rek ñëw léegi maa ngi wax muraad ne ko damay ñibbi ndax guddi na ndax fa ma dëkk dafa sori kon jotaay bi jàmm rek laa ci gis bàyyi nooru jërëjëf ñas teg nga sa tànk fi sa bàyyi tegoon seen tànk fu dara newut ñu ne fa cëpp ñoom kenn rek fexe ba dara ne fa sa maam lam doon wax ma di ko wax toujours Cheikh Nasir ci jamono bu méttee métti la woon te boobu métti naa bàyyi boobu li yomb te yombutoon de lekk gu neex bëri wutoon de Cheikh Nazir tabax na néeg mu nekk juróomi néeg mu dugal ci mbooleem lu mu am ci aw sax dénkaane ba mu ko tabaxee ba mu raase yàlla ji commencé melax ñu tëdd ci ëtt bi mu ne ma gis nga ko sabote rek la man waa xam ne suma wogoo yi sëñ yi nàpp nàppal la sëñ yi mu ngi ko bëgg a taw su roose ko ba mu tooy bu bër seete na mu fekk fi baax ma ne ko du ko def mu ne ma kii ba xoolal rek ñu yónnee ko seng bàyyi Ibrahima Gueye chef de gare bu géngi neew yónnee ko ay paqueti seng ñu ñëw ñu jox ko ni jaa Omar Kata bàyyi eble ci Omar Kata ne ko joxal diw seng yi te seng yi la naroon xëdde mu di nag dal li wéeru nag ne gannaaw seng yi ñëwoon na ma naroon ko xëdde bàyyi saraxe na seng yi mooy man danaa tawte rek waaye tawte wut de billaahi bu demaan ba xaw ma doomam yi àgg nañ foofoom de bu demaan ba def na ne bàyyi yaa ngi may gis billaahi jarul may ñëw coow di la wax dara xam gi ma xam ne yaa ngi xam lu ma dund rek doy na ma wóolu ci yow billaahi bu bër ñu gis ndimbal radiyallahu anhu maa ngi leen di gërëm yéen xale yal na ngeen dund yal na ngeen wér yal ngeen barke ku leen xaaru yal na xaddi Cheikh Tidiane nga nelee magam la dendal ñoom ñëpp ñoom ñëpp kii seen papa ah nu naar bi ah? waaw Mamadou Tund Ba mooy seen papa ñëw na ci gàmmo amee abbaayoo sol grand mbubu ne bàyyi di ànd ak Mamadou nuyu si bàyyi ak Nazir bi mu ñëwee nuyu ko bàyyi da liggéey ne ci gannaawam lalam bi jàpp ne yëkkati ne ko Mouhamadou maa ngi jox lii nga koy sol ba si àjjuma maa ko ziyaare yonent bi sa loxo kooku xam ne ñi ahlul bayti lañ te cheikh mii xamul ku dul Khady Gueye Thiam maamam moo ko yar de mu nga ne toog du ma wax lu amut te li ma la wax ni te seen juróom-benn bët la bañ lii may wax bu ci dara amutoo nag seex dana ne maa wax ci li li naar di wax maa wax ak maa waaye nag xag ba loolu rek la ci mën a teg kon yal na yàlla dundal mbooloo mi Cheikh Nazir Niang Fodé saako maa ngi leen di ñaanal yàlla Baba Lamine yal na yàlla gërëm leen man de fi mu ne seen esclave bu bàyyi laa. mënuma amuma xamuma waaye nag fu ngeen toog bëgg naa faa toog lu ngeen ne bëgg naa caa ne maa ngi gërëm ñëpp Omar maa ngi lay gërëm di gërëm sa mag Baye Cissé sol na benn kaala rek ci benn at ñëw dugg Cheikh na kër nekk Cheikh Nazir ma ne ko ah eh Jamal di yaa wala mu daldi ko génnee rek wékkal ma ko loolu delloo na ma la ma bàyyam daan defal grand mbubb bi Cheikh Nazir mujj a sol te bi mu génn àddina mu foto ko mooy sa kaabu bi man mii la ko jox. ndax maa ko kontaan loo ba mu tàpp dënnam ne ma faj nga ma suma waay billaahi lati nday amee nga nële waxtu wu sëriñ bi jalaalee dafay eew xale ci kenn ci xale yi na ko dawal kër yi bu njaay nga oo ko su ma ñëwee na kënk mu ne ma doomi xaraam ji ku la fi oo ma ne ko yàlla moo wax ma ñëw uy la am na benn bés mu mer trop di sangu ajjuma ma ñëw ci néeg bi bi may génn di wax mu génnee loxoom ci persienne yi féeteeg mbedd mi ndox maa ci toq mu ne Ibou bul dem xaar moo tax léeg-léeg bàyyi naan ma bul dem xaar ma waaye xaar ma yi du benn nag du benn de bul dem xaar ma ba ndox mi tuuru yaa roqi ñang mu baa faati buri moo romb di jooy ne billahi baaraam bi baaraam ma bàyyi la man ñii duma seen gan ba may ñëw ci loxo Cheikh Nazir ñaar laa fekk ci loxoom ñuy doom Moustapha Ndeye Khady yàlla baaxee ma ñi ci des ñëpp ci suma kanam mais loolu du teraanga teranga la li li duuf ci nag bi xëjul ci cin li maa ngi gërëm ñëpp ndax dafa am ñeneen ñu war a wax jotaay bi yal nañ ko def ay at yi at yi at te sax dana am te sax dana am ndax maa mat yi seen yaay di yaay mu Cheikh mii am na lu ma doon doxloo ma ànd ak moom billaahi lazi ba ñuy ñëw di tàggu baay dañoo fekk baay tëdd dëpp ci kaw lalam di waqaf mu wax ko ko baay ñaanal ñu ñu génn taseeg baay ndey am ni jaaw Omar Kata muy buddi ñax ci bayaal bi moom waxtu wu ndox toqaan ci suuf fi bàyyi di jaar du am ñax moo koy buddi papaam moo koy defar ba mu baax ñu génn mu ne ah sama foo jëm nii mu ne ko ñun de nangam ak nangam lañ bëgg a dox mu ne ko xée mbaa loolu ko man yee mu ne ko néeg bàyyi lañ génnee de te ñaanal nañu mu ne ay kon dem leen ma ne maam matu sa bi bàyyi am na koo xam ne war nañ koo gis ci ñi war a dem bu fekkee moom ci dëkk bi dina xam ne bàyyi wala yu pire la ndax du toog ci dëkk bi ñetti fan te tukkul juróom ñaari weer ñu dem ñaari fan dox ko maamati nañ ma nañ dem ci kooku moom it mu may testé ndax li ma ko wax daf ko frappé ñu dem jub këram rek mën nuyoo benn xale bu jigéen bu jàngee école di doomam dal ne papa Ibou njaay mu xëcc ci persienne am ne ko papa Ibou Ndiaye laa dégg nga wax de ma ne maamati ponkol maa ngoog de demut de mu ne Ibou Ndiaye sama kër ma ne ko waaw ànd ak sa jigéen. gis nga bi mu ñu recevoir billaahi daf ne maamati xaw ma lu ngeen war a dox xaw ma lu ngeen bëgg mais nangul naa leen bàyyi ñu gunge ñu génn mu yëkkati xaalis jox ma ñu ñëw ba ci hauteuru hôpital bi ma taseeg bàyyi mar fàttu jàllo ñu dénkoon ko bàjjen caam doomi bàyyi kii Aliou Aminta Thiam Omar Kata Thiam ñoo bokk ndey doo koy seen ndey mu génn ma jox ko loxo benkil ko xaalis bi ñu ma joxoon mu ne ma yow noo tudd ma ne ko Ibrahima mu ne ma kuy sa bàyyi ma ne ko Matar Ndiaye mu ne ma loo ma jox ne ma ne ko xaalis mu ne man Ibrahima du ma jox maa koy jox bay man Fatou Diallo delloo ma carrément li ma ko jox dal di ko bankal maa mati ne ma sang baa ngi nii kon jotaay bi jotaayu teraanga la damay wax ne liñ ci xam xëjut ci jotaay bi te gis nga damay wax toujours ne nit ñi bàyyi lañ intéressé wu bàyyi lañ bëgg gis nga Barham Diop li taxoon mu dominé ñëpp bu toogee def naan bàyyi nee na bàyyi wax na ma ne waaye mu ne nag lu ma soof soof soof soof billaahi mu naa wax ne Nazuru nee na Nazuru nee na ma Nazuru meloon na nangam ci bés nangam te kenn mënoo ko dindi wasalaamualeykum wa rahmatullah